ñu toog fii nag fas yéene jot li ay kàddu yu néew di jéem a fexe ba ñu ko santaane donte suñu la làmmee lott na ci doon ko jotale ñu ñu jéem kon ci ndigalu sëriñ bi ndax wax ci kanamu sëriñ bi dafa diis ndax waxam jotaay bi mu toogee xam bi mu doon booy yëkkati ci turam faaw mu diis yow mm-hmm. kon ñu ngi nuyu bokk jur yëpp di nuyu bokk réew bokk adduna si di leen ndokkeel ci weeru tëdd yi di weer koor nga xam ne ñëpp xam nañ jiite ak positif bi nga xam def na ko ci ngir fas yéene ko dundal ne ko lislaam santaane ko Sëriñ Tuubaa da mu yóbbante ma nag ay kàddu jëme ko ci taalibe bi murid nga xam ne ñoom la suñuy digal sañ leen tere kon kàddu yi ñu ngi jëm ci bokk taalibe bi murid bi ndax ñoom loolu rek li seq ñoom di ko jëmalee ci mboolem mbokk jullit boo xam ne ñoom ma yàq waloon nasihata min axiihi muslim kon mooy kàddu yi nga xam ne jëmale ko ci yéen kàddu yi nag mooy ginnaaw bu mu leen sante ci li yoon si lépp mu am tuuti ay leeral yoo xam ne ko fas yéenee jëme ci bokk taalibe yi ngir ñëpp maasi ci xam ab tolluwaay ak fi mu toll ak fi nga xam ne fi la nekk loolu itam dafa war a leer ci ñëpp ndax ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa li la war mooy santaane digle ak tere loolu rek nga seq nit ñi taalibe bi itam li ñu seq ñëw mooy samihaanaa wa ataanaa loolu rek lañ am ci seen digg loolu mooy lépp loo xam ne sëriñ bi santaane na ko rek boobaa amatul li seetaan la maa kaana wa maa kaana li mu'minin wala mu'minatin izaa qadaa Allaahu wa rasuluhu amran an takuuna lahumul xiyaratu min amrihim kon lépp lu mu santaane rek jëfi ndigal lañ ci war a def santaane bi nag mooy. leeral rek moom fi mu toll xam ne lépp loo xam ne dégg na ko muy loo xam ne war naa indi ay rëng-rëng yi wala indi sensibiliser ci biir réew wala fam ca nekk ak fam bëgg ñëpp ne fa nee na moom fi nekk fii la yéene bokk jur yëpp ne fa mooy ñëpp maas yi ca xam ne lépp loo xam ne luy indi fitna la ci biir réew mi na ko ñëpp wattandiku te sax jàmm te xam ne Serigne Touba. ci loolu la nekkoon ci loolu la loolu la santaane woon ndax lu ne mas lu ne def nañ ko ko ba tey waaye li ñu ko mas a def li ñuy wax mooy jéggal na leen kon Sëriñ Tuba xam ne lu ko ñuy fóoloo lu ko ñuy li nga xam ne nag mooy li nga xam ne bëgg na ñëpp xam ko war a leer ci bokki jiw bi nee na daa bëgg ñëpp maase ca xam ne nit balaa doon ab taalibe day doon julli ba noppi mm. nee na kon li ñu war a njëkk góorgóorlu mooy fexe ba sunu njulli ba sunu njulli wér bu suñu julli wéree suñu taalibe bi dooru mën a wér waaye nee nit du du mën a doon taalibe te doon ko julli ba kon nag nee na fii lislaam toll ci ràgg nee na ñun ñu lenn lu weesu fexe ba lislaam jëpp nekk yoon say waaye lépp loo xam lu koy xajjeel nee na moom tëlu loolu te fas yéene nag bëgg taalibe bi yëpp ci nekk la ko xam nga daal eh, li war a nekk yiteen yitee ñëpp mooy fexe ba lislaam bi ni ko rasulullahi digle moom nga xam ne leer na nañ ñi ne na amul lenn lu ci lënt nee lu ci lënt rek ci doomu aadama la waaye suñ borom li santaane wàcce ko ci alxuraan lenn lu lënt néew ci kon nag ne ñëm ne ñëpp maase ci xam ne ndegam men lënt amul nag kon li ñu war a def góorgóorlu mooy fexe ba góorgóorlu ci lislaam jiwér taal bi jiwér Sëriñ Tuubaa itam ñoo xam ne dafa doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam doon gi mu doon rasulullahi sallallahu alayhi moo tax itam bañ na ko ba dafa tudd boppam xaadimu rasul xaadimu rasul nag mooy jëw nañu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon lépp a tàbbi ci kon mboolem tarixa yëpp itam eh, na ko sëriñ bi daal santaane ko ne xam ne nag sëriñ Tuubaa daana joxe wérdu xaadir daana joxe wérdu tijaan ak assasad yi ak yeneen yi ci des kon loolu li ci jëf wax ko ci laaj yi nga xam ne gouverneur général laajoon na ko ko itam ne ko ñan ñoo yoonu murit fu yoonu murit juddoo fan mooy barabam lépp géntoo lislaam daa wax ne képp kuy wax laa ilaaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa eh, na nga xam ne ci ak njabootam boobu nee na fépp fu julli nekk tam fa la eh, fu julli ne rek fa ñoo di taalibe kon Sëriñ Tuubaa wutul wutuloon ak xàjjee ci diggam ak kenn koo xam ne mbokkum julli def la ci loolu itam fonk gi mu fonkoon rasulullahi sallallahu alayhi wa moo tax képp koo xam ne fonk Sëriñ Tuubaa itam na nga xam ne boo bokkee ci njabootu rasulullah sallallahu rek wa sallam bokk nga ci njabootu Sëriñ waaye nag boo dugg ci njabootu rasulullah wala eh, amoo xamoo lay rasulullah sallallahu loolu da maa ndax Sëriñ loolu moo doonoon muhim kon loolu na ko ñëpp xam médaille bi nga xam ne bëggoon nañ ko ko takkal itam la taxoon sëriñ bi gànt ko dafa waxoon ne médaille bi nga ko ko takkalee loolu day eh, firndeel ne xaj xajju dafa dem ci biir islam kon nag bi nee na loolu kon ñaanal na ko kilifaam yu jëkkee defoon ndax sëriñ Tuubaa ko santaane woon boo ko fi mas a ku ne itam si li nga ne xam ngeen ne 1979 80 bi nga xamee ne yu mel nii xewoon na te booba sëriñ Abdoul Ahad Mbacké moo fi nekkoon euh, sëriñ Moustapha bi fi ñëw àndoon ko moom ci xew-xew bu mel nii Cheikh Abdoul Ahad Mbacké taxawaay bu mel nii la ci amoon. mooy xamle ne sëñ Tuubaa bu ku ñuy xoolal bu ku ñuy xeexal ku ñuy gëm la ku ñuy toppal ku ñuy yaakaar ñaar kon moom tam da ngeen xam ne foofu rek ca la nekk dafa siinu ko wàcc ñaar bu dee ci digg mag bokk julli itam mooy ak xóotu islamique yi itam ñaar da koy fet bi ndax loolu la fekkoon rawatina nag ak Cheikh Sidi Moustapha nga xam ne mooy fu mujj nekk ci xaliwu Sëriñ Tuubaa ñaar fam ci nekkoon rek ci yaasal ko ci digg mag bokk julli yi sëriñ bi nee na nee na loolu képp la fas yéene wéyal mm-hmm. ci mboolem mboori kër kër diine yëpp fas yéene lépp àndaloo nekk benn nekk wenn say lépp lu ñu def euh, mu mu dëppoog lislaam lépp lu ñu def tam mu dëppoog loo xam ne genn li ñu ak jiw di ci am ba soosay la fas yéene kon mu ngi ñaanal Cheikh Sidi Moussa suñu mboolu doole leen taasu ci kon nañ xam ne yoon yi nga xam ne waxoon na ko muy ñëpp dégg ko ñaanal foofu rek la ci nekk te loolu la li ci dolli ko war mooy jëm ci taalibe Serigne Touba Serigne bi nee na li nga xamante taalibe yëpp nag li mu yéene boppam rek dana yéene te moom wax na boppam fi mu jëm wax na it ñu fas yéene doxale dara desu yi nee na nag xam ne yoon wii di yoonu Serigne Touba Serigne Touba da ko ci yaar ak i tëdd nee na kon nag képp koo xam ne yaakaar nga Serigne na nga xam ne lépp looy jëfale Serigne Touba yaar ak i loolu ñu koy digal taalibe ñu ñëpp xam ne buñ tënkoo ci liggéey Sëñ Tuubaa nekk ne ci yar ak i sax ci taal bi mboolem liñ bëgg danañ ko am bu fekkente ne nag wàcc nañ ko nag boobaa nañ xam ne lu leen te dal ñoo ko sant kon nag nee na ñu ngi sant ñëpp di gën ñaan suñu borom doolu jàmm ci réew mi mboole xoli biir yëpp mboolem ñi nga xam ne ñooy Kirgistan bi ci biir réew mi tam suñu borom gën leen a boole ndax Sëñ Tuubaa waxoon na ne yaar rek daf nekk. innamal mu'minuuna ixwatun mu ne ak tey la inna seytaan lakum aduwwun mu ne annax mu ne tey gi ci na mu'minuuna mu ne gi ci innamal mu'minuuna ixwatun nag ndax gi ci innama inna seytaan lakum aduwwun mënu ko yàq. kon nag na na nga xam ne eh, lii di këri lislaam yi eh, rek moo ci waaye yàq ci moom kenn mënu ko ndax lu leen jiitu la te kilifa yi fi nekkoon kon nag moom ci liggéeyam ak bi mu fas yéenee liggéeyal Sëriñ Tuubaa fas na ko yéene ànd ak bokk jullit yi fas ko yéene ànd ak bokk teel bi te teg ko nag lépp nag ci sunna rasulullah sallallahu teg ko ci ndenkaay na Sëriñ Tuubaa te fas ko yéene fas ko yéene wàcc te fas fas ci yéene dugal dara fas ci yéene génn dara loo xam ne lu bokk lu ci Sëriñ Tuubaa dugaloon la wala loo xam ne Sëriñ Tuubaa bëggatu mu tàbbi ci biir kon nag ngir bañ a guddal rek sëriñ bi naan mi ngi sant ñëpp di gërëm bu fekkee am naa lu ma ci war dolli waat rek sëñ bi dana ko waxaat ma àggali ma waaw